bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ridwanullahi taala al akbar an abdil xadim wa an jamihi awliya illahi almuqarrabin maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu sunu borom di sant yàlla mi borom mbindéef yi tey julli di sëlmal ci ki gën a tedd ci ñi yàlla yónni ci mbindéef yi kooku mooy sunu sang Muhammad mi al amin tur woowu nga xam ne am na ko. lu njëkk risaala gi di ñëw ci moom waa Màkka tuddee ko te mooy ku wóor ki julli googu na law ba ci ay ñoñam ak i saxaabaam mboolem seen di ñaan ngërëmal yàlla li gën a màgg yàlla na sottiku ci kaw jaamub yàlla bi tey liggéey ak konu yonent bi sallallahu alayhi wa ngërëm loolu nag bu sotti ci kaw Serigne tubaa yàlla na rogalaat ba ci mboolem awliya ullahi almuqarrabin ginnaaw loolu maa ngi nuyu mbokk yépp nuyoob islaam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñu am mbégte ñëw tey ci mbégte màggal gi ñu am mbégte ci mbégte màggal gi di juróom ñetti fan ci weeru safar ñu ñëw ak yéen ci jataay boo xam ne nii xam naa ragal naa mu ëpp benn jataay te mooy sëñ tubaa ak jay sasin atum jay sasin mooy cent 1313 bi gàddaay yonent bi amee ñetti junniyaat ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett jay sasin moo tolloo ko 1895 at moomu dafa marqué sëriñ bi moom sëñ bi at mi da ko marqué même dunduk sëñ bi Euh, at mi da koo marqué jëy weesu na ay ati at sëñ Tuubaa di ko tudd ci mbindam ci at mii di jëy sa siin ci la sëriñ Tuubaa feeñal liggéey bi te mooy xidma bi muy wax te def ko defal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sëñ Tuubaa nee na awwalu mabtada bihi alqadimu taalluqun bi man lahu taqdimu wa asxara alxidmata ama jëy wa xalbuhu atmaraha min asasin sëñ Tuubaa nee na li ma njëkk a def mooy aju ci ki nga xam ne lahu taqdim waaye nag nee na maa ngi feeñal liggéey bi liggéey bi maa ngi ko feeñal maa ngi ko jëmmal ci atum junni at ak ñi téeméer ak fukk ak ñett muy jësin nee na waaye liggéey bi nag la ko jiitu sama xol euh, dencoon na ko tàmbale ko ci assasine nga xam ne tàmbale ci assasine ba ci jësin yépp xidma bi mi ngi ci biir xolu sëñ bi waaye nag ci euh, ci jey sasin la ko feeñal te jey sasin rupture dafa am ci dunduk Serigne Touba rupture bu am solo dafa am ci dunduk Serigne Touba moo tax mu marqué dunduk Serigne Touba jey sasin Serigne Touba dana ko tuddee amut tawbati mooy at moom tuubee tuub gu sell ci suñ boroom moo tax nga gis mu naan was hët li yàlla ama bi tawbatin laka wa niyati an la asaala abdaka yàlla nang ma seedeel ci at mii di jay sa sin ne tuubal naa la te sama yéene sama intention mooy bu ma bu ma daj mukk doon sab jaam yow yàlla mu gën koo leeral ne ko ilayka tubtu bi tibaayil Mustafa sanata jay sa sin fa judli bi shafa tuubal naa la yow yàlla fas yéene topp nag yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga tànn loolu kañ laa ko def mu ne sanata jay sin atum 1313 kon fa jud li bi shafaa washhad li al aama wa baada al aami bi tawbati ilayka fii dawaamin yàlla nag ma seedeel ci at mii di jay sa sin 1313 ak ginnaaw at mii ne tuubal naa la tuub boo xam ne dafay dappatewu xat tubtu aama jay sa sin min kulli ma xadamtuhu min allah xaa moo ami ma tuubal naa la gis nga xatuk taqiq la indi tuubal naa la ci lu amul benn werante ci atum jay sa seen lépp loo xam defar naa ko ci ay caaxaan ci matale yi sëñ Tuubaa di tuddee ya muy tuddee àllaxaa loola kat du laxaa euh, ci ñun ñii ay jaamu yàlla la de kon wa azharal xidmata ama jay sa sin wa xalbuhu atmaraha min asasin sëñ Tuubaa daa firi bayit wi ñaari bayit yi wala bay di dane sëñ Tuubaa nee li ma njëkk a def mooy aju ci yàlla yàlla mi nga xam ne mooy almuqaddam yàlla mi nga xam ne mooy jiital kum bëgg a jiital te nag yàlla moomu feeñal na nekk gi ma nekk man di liggéeyaa ko nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci atum 1313 junni at ak ñetti téeméer ak fukk ñett ginnaaw gàddaay bi liggéey boobu nag sama xol ëmboon na ko dencoon na ko ci atum jaysin waaye mun salixan fii jaysasin min xayrabil wada xadima usni xayri sëñ Tuubaa nee na wa maxnaa haadal bayt ana naasima in salaxa min kulli ma kaana fii min al ulumi wal awraadi wa xayriha min al ibadaati wal aadaati mutaalliqan billahi xadiman li rasulihi alayhi bi kulliyati sëñ Tuubaa nee na wi mooy ki way way wi man sëñ Tuubaa man mi ko way lépp lu ma yoroon ci xam ak ay wird ak mboolem xaati jaamu yàlla yi ak aada yi dama cee simmeeku ba set wecc aju ci yàlla nag di liggéey di liggéeyaa kon yont bi sallallahu sama ci sama kulliitu sama lépp sama lépp kon gis nga rupture dafa am ci jay sa sin ci atum jay sa sin la sëñ Tuubaa bàyyi lépp lu mu ne woon ci xam-xam yi ak lawraat yi ak ibaadaat yi ak aadaat yi lépp mu denc ba set wecc aju nag ci yàlla aju gu wér-wér doon liggéeyaakatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci léppam ci léppam kon mi nga noonu atum jaysasin mooy aamul max wi at moomu sëñ bi da cee farlu bari bari lu mu bindoon gis nga mu naan allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa ali wa sahbihi kama maha bika kulla ma katabtuhu min al makatibi xabla ama jaysasin wa jaala makaana kulli waxid minha akbara ridaaka wa axla sururi ali bi ali wa sahbi banim jeexee mu ne atum jaysasin mooy atum farma yow yàlla na nga julli sëlmal barkeel ci Seydina Muhammad sunu sang ak i ñoñam ak i saabaam ni nga faree lépp loo xam ni bindoon naa ko lu njëkk atum jaysasin 1313 te nag li xasida yooyu ma loolu ma bindoon te te njëkk jëy sasin bi nga ko faree danga nga koo wattee palaasu bind bu ne da nga koo wattee beneen boo xam ni sa ngërëm li gën a màgg moo ci ne mbégteel yonent bi sallallahu alayhi wa sallama li gën a màgg moo ci ne mbégte ma gën a kawe ci mbégte yonent bi moo ci ne kon gis nga euh, jëy mm, mm, sëñ bi da cee tëj paas bu bees da cee tëj ab paas ubbi ci paas bu bees rupture da cee am ci dunduk sëñ bi waaw sëñ bi da cee ubbi paas bu bees kon mën naa yem fii ba suba ma ñëw ak yéen wéy ci sëñ Tuubaa ak Diakha Sène ndax jataay bi bëgguma mu mu gudd mën naa jeexal lii rek sëñ bi nee na maa ngi sant yàlla di delloo yàlla njukkal ci li ma jox ci tiyaaba ak kawe nee na diirub ma am ma am xel dañu ma di sàkkoo xam yàlla wër naa boroom xam-xam yi wër naa waliw yi ci sama yéene ak sama wax ak sama jëf ngir lan sama duntu sama dund bañ a sànku waaw waaw mu ne jàng naa bind na ay at nee na may ngisal sal euh, na ci jëf joo xam ne day mel na jëfi ko dox la sëñ bi wooyee ngisal nag ca moom doonul ngisal ci ñun de nee nag ba ma wëlbati ko nag jëm ci yàlla jëm ci yonent bi te suñ borom moo ma xëcc a ci moom ma taqoog euh, aayaam yi di diyaale moom lii ma wax nag ma nga njëkk jay sasin ci jay sasin nag ah laa génnee euh, walla ci la ma suñ borom wammatee ci lu ànd ak benn lor ginnaaw boobu ko tàmbali nag ci ay sasin kon gis nga jey sa sin at mu marqué dunduk sëñ Tuubaa la at la moom rupture da ci am ci dunduk sëñ bi at la moom sañ bi sax dafa wax ne lim bind jiitu jey sin sun borom da koo far ba noppi wottee ko benn bu ne nag euh, ngërëmal yàlla la gën a màgg ak mbégtam yonente bi sallallahu alayhi mi gën a màgg wamhu kulla ma katabtuhu xabla ama jey sa sin wa habli tajdidahu min baksin lépp lu ma bindoon njëkk jay sa sin 1313 yàlla na ko far te may ma ma beesal ko min baksa sin kon fii doy naa yem ba jataay bi di ñëw suba ñu woy ak yéen ci sëñ Tuubaa ak jay sa sin